Gracias. aussi, c'est qu'on a profité pour rappeler Famarani. salaamaaleykum internet Sénégo TV ak Kawtef monument de la renaissance euh, seetaan match Sénégal Qatar jamono ji nag Sénégal moo daal di mené un but à zéro ñu laajte rek ñi nga xam ne ñoo ñëw seetaan boobu le match nañ lañ gisee soxna si maa ngi lay nuyu. ça na ngeen def yéen a ngi si jàmm Charlotte la. Euh, maa ngi jóge ba Maris si ñëw seetaan fii waaye à première mi bi en tout cas kontaan nañ daal ci match bi bégg nañ et daal li ñu gis match bi suñu sañoon daal léppay continuer kontaan nañ trop ndax euh, première euh, match bi découragé woon nañ mais tamit aussi ñëw na nii kontaan nañ moo tax waruñu découragé benn yoon ñun ay gaynde lañ gaynde guñ doon nag moo war a tax ñu ñu war a fonce te fonce bu ñuy def nii bu ñu jàppee ne ñun génne nañ rek ndam li dinañ ko am nañu gëm suñu bopp gëm yàlla xam ne yàlla rek ay buur lépp dina am incha allah ci kàttan yàlla. il était temps aussi pays africain yi ñu marqué but parce que namoon nañ aussi Sénégal mu wane ne moom champion d' Afrique la. dégg comprendre ma. ah Sénégal yéexewul waree ne champion d'Afrique la Sénégal ñun dañ ko mus a nekk donc dañ ko mus a nekk dañoo am courage ne chaque jour ñun ay champion lañ même bu dul footballeur yi sax ñun Sénégalais naturellement noonu lañ mel ay champion lañ lépp lu ñu door dañ koy daan incha allah. heure julli bi mu mel a ngi di seetaan est-ce que respecté ah. ah tey nag ñu jiitu heure julli romb nañ ko waaye nag yàlla daf ñuy jéggal rek te xam na tamit lii yëpp pour euh, ndam bi ñëw mais nag juli bi si la bokk ndax bu ñu demee julli ñaan yàlla euh, yàlla dañuy indil ndam li waaw kontaan nañ bég nañ daal ci Sénégal Sénégal ca kaw ca kanam vraiment waaw merci beaucoup. asalaamaaleykum <laughs> ah, Sémégo Sénégal moo xew ci jamono équipe bu mag bi dañuy sant yàlla kon ko am nañu 1-0 premier mi-temps. ñu ñaan deuxième mi-temps amaat beneen bii wala jéem a conserver trois points yi l' essentiel est de loo loolu rek am solo Sénégal ca kaw ca kanam Sémégo ca kaw ca kanam avec les lions de la Teranga. waa yàlla moom moo moom lépp xam na lu mu programme ndaga moo dem ba programme lii ci biir heure bi waaw bu ñu paree nañ ko ko santé rek waaye na ñu am ndam. moom xam na lépp gis nañu lépp ñu nekk ci jumaa ji nañu julli gën a ñaan rek après bu ñu paree ñu delloo yàlla Sénégal ca kaw ca kanam merci beaucoup Sénégo ca kaw ca kanam Sénégo ay ca Sénégo mooy Sénégal moo xew ci jamono lu xew yàlla ñu ngi leen di seetaan Qatar li ngeen fay def neex na ba pare Sénégal Sénégo ca kaw ca kanam lii neexul. madame Dia. Hmm. ça va bien merci. vraiment hyper content pour premier mi-temps bi di ñaan yàlla may ñu dem si deuxième mi bi ba mu nekk ay score nag waaw bëgguñ bëgguñ 2-0 bëgguñ 3 nañ ko daabali. yàlla lañ si ndam vraiment ndax yéen a Sénégal mérite na ko daal vraiment. est-ce que dina yomb parce que aussi stade bi ni mu feesee te ñoom ñooy pays ah bon war naa mën yomb puisque euh, Qatar ak Sénégal. Euh, kii bi vraiment première mi bi Sénégal wane na ni carrément il fait tous les efforts ak occasion yi aussi bari na macha allah pour man méttiwu suñu côté daal na chance bi augmenté rek bi yokk c'est ça. allez ñoo faat. oui bikum ya Binta. marhab. bikum ya Binta asalaamaaleykum. saa naka bu. waaw ñoo si jàmm. yaa ngi Qatar. waaw man maa ngi Qatar ànd waa douzième Gaïndé Mbaye Diallo laa de Edouard Mendy <laughs> ñu ngi supporté bu baax équipe nationale ñu ngi seen ginnaaw li may faral di wax rek nañ yëngal si suuf ñu yëngal si kaw ndam ñëw incha allah coupe bi soxla ren. ci suuf nii nga koy yëngal. nii laa koy yëngalee des na yeneen feem jël ma si kanam bu ma si bi rek jël ma des na yeneen feem di ko may Edouard Mendy nag lépp mu ngi si loxoy Edouard Mendy Edouard Mendy bat 3 amatul enquêté doyal nañ si enquêté incha allah. sayse bi ak juma bi tey nu fay demee daa mel ni euh, fii nga xam ne mooy fan zone bi ñu ci bëri demuñ juma de. waaw ah, juma ji ah ok pourtant julli ji ne sax dañoo julli ba ñëw doog a ñëw 15 minutes après match bi doon ñëw. non da wax sax même sax même pas dañoo julli ba ñëw doog a ñëw incha allah. <laughs> <laughs> Ouais, ok, merci. Ouais, ça va, c'est juste, euh, je pense, offensivement, il faut qu'on fasse mieux, en fait, je pense. Offensivement, il faut qu'on marque, comme je vous ai dit, il faut qu'on marque vite, rapidement. Et si on marque rapidement, je pense que ça devrait le faire. Et essayer de marquer plus de buts, parce que le dernier match, ça risque de jouer sur le niveau, au nombre de buts. Voilà. Euh, je vous en prie. Non, c'est beau, c'est beau, merci. Non, non, c'est beau. Non, non, c'est beau, merci. il <laughs> dit ses phrases. Je sais pas quoi dire. il faut qu'il marque euh, deux ou trois buts par rapport à, l'Équateur. Et euh, voilà, il faut augmenter la pression. Et voilà, c'est tout. Ouais. <laughs> ou 4-0.

Fêtez cette belle victoire avec nous, mesdames et messieurs. Ça va se passer. Les choses vont se porter. Et ça sera tout de suite avec l'artiste qui va venir, qui répond sous le nom de Gaël Rospo. On applaudit très très fort. Gaël Boiro, Gaël Boiro, Gaël Boiro. Le bâtiment, on applaudit très très fort. Voilà. sénégalais yi ñoom ñëpp kontaan ci victoire bi comme ni ngeen ko gisee rek ñu ngi woy ñu ngi ñaan ñu ngi wone aussi seen mbégte ak seen bànneex ci victoire bi nga xam ne Sénégal daal nañ ko am. champion champion moom kontaan nañ macha allah Sénégal jëm kanam di xaar ñu qualifié final oui jaajëf soxna si merci beaucoup kontaan nañ pardon. Sénégalais yi par rapport ak. Sénégalais yi dara ñu gën a mobiliser rek supporter équipe bi mu dem ca kanam amul découragé dañuy soog a commencé benn match lañ football bi mooy deuxième match bi ñu gagné troisième match bi ñu qualifié mu jeex tak dañoo war a jël coupe du monde indi ko Sénégal man loolu laa gëm man waaye. moom daa julli juma ba pare ñaan li nga xam ne mooy coupe du monde euh, Sénégal daal di ko indi comme ni ñu indee woon rek euh, coupe d'Afrique bi nga xam ne euh, daal nañ ko def ak compétition bu am solo ñu wone seen bopp nag Lions yi comme ni ñu ko defee woon rek ñu ngi leen di xaarandi tamit ci coupe du monde bi def fa ñu jaaroon ñu jaar fa ndaxte it Sénégalais yi nañ leen xam nañ am nañ compétence yi te it mën nañ koo def. boo dul sportif donc doo ko dëgg doo ko mën a gérer maanaam équipe moom moo ñu tàmmal gagné à chaque ñun xamuñu xamuñu defet xamuñu defet mel nii moo tax bu ñu amee defet à chaque fois kenn boo ànd ak sa da ngay critiquer mënut a ñàkk mais daal waaw li leen bëggoon yàlla may na ko dañuy ñaan yàlla xam nga ndam li jëm ca kanam daal waaw xeelal ci bi su neexee ma fay bu naqaree ma dem sama yoon ma ne xeelal ci café bi su ma fay bu naqaree ma. Oh, waaw loolu dara yow ma lay xeelal yow Maître Iseu dama lay On est français. Comment ah, On n'avait pas prévu de sur Dakar, on savait même pas qu'il match et du coup on se retrouve dans une bonne ambiance. Merci. chambouler les choses. Voilà. voilà. soleil c'est normal dañuy nañ muuru euh, mun suñu cër en même fashion en fait c'est waaw bien sûr match bi macha allah mun naa ne ñi woy nañ seen bopp parce que premier match bi dañoo ragaloon peut-être Sadio Mané fi nekk loon moo taxoon ñu jàpp ni peut dañuy am longueur d'avance si ñun mais heureusement que ñëw nañ yéegaat nañ daal wanewaat nañ suñu bopp parce que ñun ñooy champion d'Afrique kon war ñun ñooy champion du monde kon waruñu wane yenn yi daal c'est kontaan nañ daal vraiment ñoo ngi ñoo ngi remercier surtout ñu dugal bi yi kontaan nañ trop si ñam allah coupe bi day ñëw. coupe bi lañ. daba ah. ah. coupe bi lañ bëgg day ñëw incha allah gëm nañ ko ah. ah merci xam nga comme Sénégal lañ wax dañuy représenter Sénégal lii mooy suñu culture macha allah dañ cee fier <laughs> bon. là là moom mënuma prononcer aussi loolu parce que je sais pas xawma grand chose si match quand même mais bon en plus Aliou Cissé je l'adore <laughs> je sais pas si je peux me prononcer sur ça mais en tout cas comme là on a eu au moins trois buts je pense que je sens nous sommes sur la bonne voie quoi yàlla baax na merci.